man euh, mago ko ci jamono yoo xat yoo xamante ne bii jamono yi dëkk bi kuy tëjul sama xel rek teg nañ la physique ma am ci boole bokk ci nattu bi mais bokkee ci nattu bi euh, bala bala dara sax bala ay dara xew sax ñu ñaanal yàlla ñi fi faatu ñëpp ci événement yi ñëpp yàlla na yàlla yërëm te yeexe ñoo bi ma boolee ci nattu bi nag comme que loolu la yàlla dogal foofee laa toogee da xalaat ba si yàgg ma waaw bo solé maillot Sénégal bima déggé nekkee Touba ma gis ko xoy ne maillot Sénégal la sol ñu japp ko tej ko solé ko xoy brasia Brassia kenn du ko takk màggalu sëñ Fallou gi mujju ñu fay tuddu Ousmane Sonko ñu ne kenn du ko fi tudd affaire yi ma dundul leen dama ne amee ma bëgg mom légui dañu dem ba bëgg bëgg a sénégal nit ñi koy bëgg koy bañ ma loolu bako sétat ko bako dinaa bokk si du sétat dina créer mouvement Benno Bokk Sénégal parce que comme que politique yetu dof la boko deful ab dof dogay jël jël di la ko dóor xaaral ma def politique du du ma nekk rek politique de politique de développement loolu moo ma dugal ci loolu ma créé mouvement bi calebasse yi ma jot a ñëpp ñëpp sax ñëwuñu calebasse yi daal di ñëw tey euh, bi ñu mujjee daje président Ousmane Sonko mu ne na kenn ku ne dellu sa base euh, campagne liste bi fekk booba ñoom am nañu fi bureau fi nekk nii am naa fi bureau sama bureau mouvement ma ne nag xaaral ma occasion na wàll ci euh, inauguré kii bi permanence kon lii mooy solooy ndaje bi ñu jëm ca élection le 17 novembre. en tant que chef de mouvement nekk aussi bokk ci mouvance présidentielle bi lan ban appel ngeen woote pour dal ak jàmm parce que ñi ma nekkal nii ñëpp si mouvance présidentielle kii Mbour la jógee ci mouvance présidentielle la bokk kii moom la fi présidente Abdou Mbodj yabal ci mouvance présidentielle la bokk Kaolack la jógee Bour Guéwél mi ci la ci président kon. ñun dañuy dinañ def suñ dinañ def lépp xar suñ tànk tuma yi ci lu ñu man ak lu ñu mënul lu ñu xam ak lu ñu xamul ba ñu dégg wiiw euh, ci le 17 avril incha allahu rabbi te am na si yaakaar bu wér. tey euh, ci sa discours bu sànq tudd nga ne élection ki nga xamante ne mooy Donald Trump ba ñu bëri jàpp na tey Trump toog na mais ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir Amérique. Hmm. ñu amul kayit amaan na émigré mu ne leen. génne ci dëkk bi. loolu lay def ci Sénégal. mu nekk dëkk boo xamante ne daanaka ñëpp a fiy dugg ñëpp a fiy génn. Mm-hmm. alors tey mouvement Benno Bokk Sénégal ban appel la mën a def ci nguur gi ba képp koo xamante ne yaa ngi dugg bi yaa ngi dugg bi dugg fii Sénégal. nga dugg dugg bu anam bu rafet te boo fi nekkee daal moom norme yi fi nekk daal nga mun ko. loolu loolu moom la sax lu ma tax ma la ñun mag ñi nañu génn suñu loxo ci politique te fal xale yi xale yi ma gis nii amu ñu complexe ben tubab wala ben président astafurlah mala xalé yi waaw deuxième génération bi dem na wax génération bi ma gis ni génération Ousmane Sonko 40 ans 50 ans jëm kaw amu ñu ben complexe quoi que la soit gis nga bu ñu toogee ba jek yaa ngi dégg ku ñu ko ri mbax ñu tam mbax la ko loolu la lay wax dinañu def tobar torom nak limu def deug la am réewam lay am rek fosse la wax jumaay gis nga limuy wax am Sénégal d'abord waye man gëm na ne torom dina def limu wax ba nga commencé woon na ko ba nga xamante ne bi toogoon na ci premier mandat am bon ba waa daaneel ko ci mu amul deuxième mandat mu ñëwaat na ñëwaat gi mu ñëwaat moo lay wan ne surprise am na wala réccu am na fii itam ki nga xamante ne moo fi nekk manœuvre yu ne def na ko ñun ñëpp nag gis nga bu ñu fàttee mujj gi Sénégal fii ku ñu tëjul kaso rek tëj na tëj na kaso seen xel ku demul kaso ci biir tëj tëjul ko seen xel waaw su cause sëriñ ak ñëpp laa ci yemal nag kilifa diine kilifa dañ yëpp tëju woon seen xel Macky Sall def lu ko neex ñu dëru leen ko def mbirum kayit yooyu dugg Sénégal nu la neexee te doo amul lay wax gis nga gis nga génération bi nañ leen jox majorité rek te xool leen génération bi ñu leen joxee majorité majorité si xool leen yéen yéen a war a développé réew mi réew mi yéen ko moom réew mi du benn paa doonool la seen ñii yéen génération bi yéen a ko moom am leen fulla ak fayda ànd ko Ousmane Sonko ak son excellence président Diomaye ngeen saa suñu réew saa suñu continent continent bi ci boppam war a changer parce que continent bi mu am matière première ba pare di nekk di nekk fi mu ne loolu la Ousmane Sonko bañ loolu la président matière première bi ci àddina bi yëpp lu ëpp fii lay jógee ba pare continent bi mel ni mel loolu dafa war a dakk li koy dakkal nag mooy yéen génération bii te mën ngeen ko dakkal man loolu laa gëm. Fani Fani gis nañu ban message ngay lancer Fani gis nañu violence bi ci politique bi euh, un peu partout yéen ay porteur de voix ngeen ban message ngay lancé pour ñu mën a donc ci élection waaw ñoo ko ñooñu bëgg élection rek wala bëgg bëgg a yàq der def ñi def violence bëgg rek la wala bëgg euh, bëgg a siiw gis nga dinaa la xamal yàlla te lii la wax man visionnaire man philosophe da damay gis lu ñëwagut gis nga lan li Ousmane Sonko li génération bi daj ba ci pouvoir wallahi la ci ko bëgg a jëlee nguur gi seen loxo di ko wajjat du mëna nek nekk fit ma ñu amoon jàmmaarloo Macky Sall ba ba jël ko fi Macky Sall dafa manœuvrer ba jël réew mi li jël réew mi ci yaa ngi mais yéen appel ban appel ngeen di lancer pour. appel bi nak calme calme te calme ay force moom frère calme moy am far force xamul tax rew mi réewam kurus la. lu fi waayam kurus la ko may lu waay ñàkk kurus la koy xañ foofu laa ci yem réew mi réewam kurus la lu fi waayam kurus la koy may lu fi waay ñàkk kurus la koy xañ réew mi dafa am ñu ko moom dafa am nu mu demoon man daal li may li ma bëgg li may ñaan gis ku doon ku doon la ba saxaar gi raw la di nga di nga baat sa dama ne nañu nekk si ginnaaw son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko ak équipe am ñuy génération yi nga xam ne yéen a war a soqali waxuma la réew mi continent bi ci boppam continent ci boppam yéen génération bi yéen a ko war a jëlee fi mu nekk yéen a ko fi war jëlee parce que ñun jiim nañu ba suñu limite taxaw na ñun mag ñi sama papa jiimoon na sama maam jiim nañu ah sama grand frère wala sama morom Macky Sall ñoo maase ak man ak Macky Sall ak ñoo maase man Macky Sall Youssou Ndour ak kii ñoo benn génération la ñu ñun ñëpp 59 la ñu ay 50 ay yaa ngi dégg.

surprise bi lan la Diomaye ndaw la te ñi ëpp ci ñuy investir ay xale lañ te xale yi du duñu fay seen avenir duñu fa nekk yi danga sante dinaa la xamal yaar lu wértu woon na ko jàpp te lii ba la du dañ gis nga Diomaye ak PEP ku leen bëgg a concurrencer ku leen fi bëgg a di nga jantal di nga bëri xam-xam Pastef Pastef ni ko am xam-xam da ngay jantal am xam-xam ba yaakaar ne assemblée bi ñu jëm du li fi newoon du am du am yéen xale yi non do am do am dama ne ma daal li ma lay wax ma ne équipe bii ma gis nii Pastef gii ma gis nii ku leen fi bëgg a di nga jantal di nga am xam-xam boo jantal amoo xam-xam boo yaboo ko dem lem sa gerte toog ci ah kaddu gu mujj gi mooy dina sant yéen presse bi di leen gërëm di leen sant bu fu sant yem di leen gërëm bu fu gërëm yem di leen wax nag ngir yàlla ak di leen ñaan rek di leen ñaan nekk na si ginaaw seen morom yi parce que Diomaye ak ko seen i morom kese la ñu wala seen i grand frère nekk na si seen ginnaaw ñii fi jaar ba jàll te yóbbu yóbbu nañu réew fa seen limite yem dëgg-dëgg mënatuñu wax lu ñu gëm man de ko leen di ku kuy nangu ñu wax lu ñu gëm man du ma bokk. nekk leen si ginnaaw équipe bi ak équipe bay ñëwaat ñëpp di ay ndaw ngeen yóbbu waxuma senegal ngeen yóbbu continent bi fa mu war dem continent bi mënul di am matière première ba pare di nekk mu kooku xel mënu koo nungu ñu tukki nañu continent bi moom moom matière première bi jóge adduna bi yëpp si continent bi lay jógee ba pare continent bi nekk fu mu ne. xel mënu ko nungu loolu politique bu bon la. te maa la na a waxal nag gis nga yi ñaari gars yi ma gis baax na. <laughs> ci nasaraan bi danaa bàyyi monsieur Diène. waaw monsieur Diène tënkal ju ko ci français. waaw tënkal ju ko ci français lu bi français bi tënkal ñu ko. waa kii ñu waa secrétaire général voilà secrétaire général secrétaire général bi kii mooy secrétaire général bi wala nga tënk français. jàmm jàmm eh jël ko français secrétaire général baa ngi nii. jàmm français dafa am français. mooy français secrétaire général parti baa ngi nii mooy. ah yaay français daa def français. waaw maa ngi français waaw. xaaral xaaral. gunge leen ko gunge leen ko. vous De parlez vous de la parole, voilà. c'est que allez -y, allez -y en, le, le, secteur général du mouvement a bien parlé. Il a parlé du, pays, il a parlé du projet, il a parlé de Sonko et de Toumaï. Il a parlé avec la jeunesse pour qu'il soutienne le projet. Le projet, c'est vite Paul. Chaque pôle c'est des pôles de développement. Donc, il faut soutenir les deux présents, Les deux présents. Le, secrétaire général a tout dit. Donc, nous, demandons le peuple de soutenir les deux présidents, président du passé et président de la République. Et le 17 novembre, Inch'Allah, la majorité viendra chez nous, Inch'Allah. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Voilà. voilà, bonjour à tous. Voilà, donc euh, mon nom c'est Madame Khadidjo, Madame Khadidjo, voilà, secrétaire générale du mouvement. Voilà, alors en somme, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la mobilisation a été très forte. Vous voyez ici, voilà, les femmes euh, derrière nous. Voilà, alors ça prouve que vraiment, que vraiment nous euh, nous avons vraiment une mobilisation voilà, du côté des femmes. Et les femmes en général, quand elles sont avec vous, vraiment, euh, on peut vraiment se rassurer. Voilà, parce que c'est les femmes qui, votent, en général, les enfants. Voilà, et c'est les femmes en, général qui, qui, nomment, si on peut dire. Parce que les femmes et les jeunes sont, les, sont la majeure forment la majorité dans ce pays. Donc, euh, et donc, aujourd'hui, vraiment, euh, nous pouvons remercier le président Baba Kunte Diouf, président du mouvement Ben Boko Sénégal, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Alors, voilà. concernant ces élections, nous avons constaté mhm. voilà, des scènes de violence durant la campagne électorale. Effectivement. en tant que porteur de voix, quel message mhm. lancez-vous à la loi de tous les acteurs politiques, notamment les candidats voilà, ce qu'on ce qu'on propose peut-être aux acteurs politiques, ce en tout cas pour le mouvement Benno Bokk Sénégal, euh, milite pour la paix. Voilà, parce qu'en général, ce qui font la violence, ceux qui amènent la violence, en fait, ils font que saper les élections. Ils veulent tout simplement saper, ils veulent saboter. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la majorité. Donc, ils font tout pour saboter ces élections-là voilà, pour montrer qu'en fait, le, camp, le, camp du pouvoir, dans le camp du pouvoir, il y a des gens qui sont violents, alors ce n'est pas le cas. Voilà, c'est eux qui provoquent. Mais dans tous les cas, ah ah. vous appelez tous les acteurs Oui, euh, oui, au calme. Voilà, au calme. Et votez massivement PASTEF le 17 euh, novembre. Voilà. Votre leader également que l'Afrique a, la matière grise. Et que l'Afrique continue toujours de s'appauvrir et que la donne doit changer c'est ben, parce qu'il y a certains politiciens qui, ont longtemps, y nous avons longtemps eu des gouvernants, en fait, qui n'ont pas su mener ces politiques à bien. Nous avons des ressources, nous avons des ressources. L'Afrique est très riche, mais malheureusement, bon, le problème se pose au niveau de nos gouvernants. Voilà, voilà c'est la gestion qui pose problème. Voilà, d'où l'immigration clandestine. D'où l'immigration clandestine. Je pense que on peut faire confiance euh, aux hommes qui sont actuellement au pouvoir, à savoir son Excellence le président Bassir Diomaye et le Premier ministre M. Oumanson, Sonko, président du PASTEF. C'est pour cela d'ailleurs que le mouvement Beno Sénégal est derrière PASTEF et invite ses militants à voter PASTEF. pour le 17 novembre vous remercie. Euh, madame Diouf secrétaire générale du mouvement Benno Sénégal. Merci, je vous remercie.